ci li aju ci jullit ajjuma yi ak waxtu yu juróom daayir muxaddamatul xidma di xamle ne ni ko sëriñ bi diglee rek lañ ko fas yéenee taxawee muy ne ñuy liggéey ci jumaa ji rek lañu may ñu jullee fi waxtu yu juróom ak julli ajjuma yi ku dut ñooñu nag ndigal li mooy na jullee ca këram ba yeneen jëmmi jamono daayira muxaddamatul xidma nag di ñaan mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yépp ñu jàppale leen ci loolu ni ko sëriñ bi bëggee ngir mu amee ko noonu kon képp koo xam ne bokkoo ci ñooñu ñu wax ñuy liggéey ci jumaa ji ñu ngi lay ñaan nga toog sa kër jullee fa ba yeneen jëmmi jamono ngir ñu mën a sàmmoonteeg ndigalul sëriñ bi ba sëriñ bi ni mu ko bëggee mu amee ko ni lii mooy li sëriñ bi santaane te daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene koo taxawee ñu bañ mu ump kenn balay kenn ñëw ci jumaa ji jàpp ne dañ koo tere mu julli ci jumaa ji waaye lépp ci ndigalul bi la loolu rek lañ amoon ci lu ñuy leeral ñi ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.